Euh, ba actualité bi moy démb da nga def vidéo virale viral euh, si ki nga xam ne que moo di euh, Moustapha Arfan ginnaaw ba mu euh, képp ku voteel au Pastef da alko exactement Arfan fond euh, di aussi des ay et yu bëri si li nga que modi média bi Arfan comment est-ce que nga analyser wat li nga xamné que modi cadre parce que jëm nous expliquer japp na ni.

mel ni Moustapha il devait même être interdit hmm. des plateaux des micros hmm. parce que c'est pas des références hmm. wax naa ko démb dinaa ko waxaat parce que boo gisee Moustapha Diop taxaw ne ni ñi ànd ak Ousmane Sonko ñu voter ak Ousmane Sonko ànduñu ak accent sago <laughs> ce qui dit ce qui le mooy révélé ni que mom euh, mom mom Moustapha Diakhaté il n'est pas au au même longueur d'onde avec les Sénégalais à même longueur d'onde avec les Sénégalais Sénégalais d'un côté ko dépasser politiquement hmm. les jeunes qui se sont qui sont qui sont votés qui ont voté pour Ousmane Sonko excusez-moi hmm. les jeunes qui ont voté pour Ousmane Sonko wala le parti passé ils ont encore raw ci politique Ils hmm. ñoo raw Moustapha Moustapha Moustapha euh, moom ci ci politique Mustapha politique mais il peut se permettre d'insulter les gens comme il l'a toujours fait il peut se permettre de caricaturer les gens. Parce que Moustapha Diakhaté, il a toujours caricaturé mm. les gens. Mm. Moi, maman, tu prends 18 millions de sénégalais moom kese moom cund mu mel ni moom Moustapha Diakhaté moo gën a muus ñëpp moo attentionné alors que tel n'est pas le cas il y a une très grande différence entre Moustapha Diakhaté avec les jeunes d'aujourd'hui vraiment c'est seen différence. c'est parce que Moustapha euh, parce que nee analyse le sur la scène politique. ak publique parce que parce que kuy wax sans argument. yow bi nga dalee politique mosoo wax lu baax mosoo dem fenn ba ñu ne ah kilifa gi Moustapha Diakhaté wax na lii. Mm. nañ ko rafetlu. Mm. ba mu dalee politique wax naa ko démb. Mm. nag benn nit génnee ma benn vidéo ba mu Moustapha Diakhaté taxawee di wax dëgg benn ñaarel bi nañ sénégalais yi génnee ma benn vidéo bu Moustapha Diakhaté mais mais non il faut nga comprendre tamit euh, il faut nga comprendre tamit dafay ah, militer non non xam nga militer ñàkkul da ngay wax dëgg hmm. oui militer ne veut pas dire que tu dois traîner toujours dans des mensonges da ngay wax dëgg on a vu des opposants yo xamante ne tey boo waxee bu ñu waxee sax nga applaudir même en étant des opposants même en étant des opposants hmm. il ne il ne veut pas dire que il n'est pas dit que tu es opposant moi madame dans nga war wax lu chaque fois dans nga war wax lu hmm. il n'est pas dit que tu es opposant dans nga war di c'est pas de l'opposition ça il n'est pas dit que tu es opposant aujourd'hui da nga war di di wax lu même quand Ousmane Sonko dit ça yo nga déformé quand Ousmane Sonko bu mu Dakar Arena di mon mom stratégie la pour que projet bi aboutir stratégie stratégie ils sont quand même à parler de stratégie. Donc, l'on dit Macky Sall que oui, oui, oui, Donc, le LEP amul. Maïma, maïma, maïma, maïma. Mm. Alors, Ousmane Sonko taxawna Dakar Arena né sénégalais wala jeunes yi fa demone ak sénégalais yi ko don sétan mu ne lan li ngeen don lima don def moy ci grève de la faim bi ak li dama defoon stratégie pour yéexal mbir mi parce que man su ma defuloon noonu amaana Pastef tey du dem du am candidat bay nekk tey au pouvoir mm ralentir def pour ralentir le jeu de la persécution du pouvoir qui était là. Mm. C'est Ousmane Sonko qui l'a dit. Mais regarde Moustapha Diakhaté, comment il a traduit les propos de Ousmane Sonko. Comment il a déformé, comment il a manipulé même les propos de Ousmane Sonko. Mm. Faut que Moustapha donc, c'est un gars qui est nihiliste. Il est nihiliste. Il ne faut pas voir donc la face euh, bien donc de l'iceberg même il voit toujours le côté négatif de l'iceberg mm. la face cassée mm. donc moi, je Moustapha n'est pas un donneur de leçons il doit pas de nous insulter et insulter nos parents parce que un peuple qui fait 18 millions de Sénégalais comme mel ni moom Moustapha Diakhaté taxaw ils pour parti parti Pastef ce peuple là dafa alko Comment quelqu'un qui est respecté, respecté, peut parler comme ça Parce qu'il n'est pas respectueux Ah, malgré son âge, je l'ai dit, malgré son âge. Normalement, fille, âge bu mu am moom Moustapha Diakhaté daf ko fekk mu tal à part di def sorti ci média yi di des di wax lu dul dëgg di sosal di sosalaate di wax lo xamantene ñu lay mm. wax na sax lo xamantene ne ñi dañ koy xébé ba mm. faw mm moto manila dembe seigne Fallou Moustapha jaxate dafa bok ci ñu yakal le projet de Macky Sall. Moustapha jaxate hmm. Boko na ci ñu yakal Macky Sall. je sais que peut-être Macky Sall xamuko wala xam na ko te Moustapha mi ci la bok ci ñu la gouvernance de Macky Sall c'est ça la réalité. Hmm. nit ko xamantene buñ la yóbbee assemblée nationale même en étant député dans le wax lu bas, en étant député groupe président du groupe parlementaire de Benno Bokk ne connaît pas ko fii hmm. moom Moustapha Diakhaté même en étant président du groupe parlementaire de Benno Bokk il ne parlait pas des choses bien waxul du du doon lu bax en fait à part taxaw fi di jéem euh, même comment dirais-je diaboliser certains membres de Benno Bokk Yaakaar di nan ni mo len fal man du xarit Macky Sall xarit la hmm. il a dit ces choses là wa Pastef ñu wara ray dinañ leen ray ñu ñu war dinañ il a dit ces choses là ici ak yenen ak yenen yo xamantene tay sama ngor tay may mom ma jaaraat ci c'est le Moustapha Diakhaté qu'on parle d'aujourd'hui hmm. donc moi t'as mon ne ko on peut pas te laisser yow Moustapha Diakhaté nous insulter et insulter nos parents man là où je suis pas d'accord parce que man amana sama papa vote na pour Pastef te yegumako mm. amana amaana yow fallu sa papa vote na pour Pastef te yëgoo ko yow mm. amaana sénégalais lambda bi wajurum ay waajuróom yi vote wot voté nañu pour Pastef parce que on est dans une démocratie on est dans une démocratie quand Mustapha Diakhaté parle il nous a insulté et insulté nos parents c'est comme si moom il est un intouchable c'est là où je suis pas d'accord mm. c'est comme si il est un intouchable donc il doit arrêter ça euh, Warna ko euh, arrêter Warna na euh, bàyyi ci méthode am parce que baaxul on ne peut pas se permettre de lui regarder aujourd'hui nous insulter à longueur de journée c'est ça la règle loolu la wax chaque fois. ñu ne bu état takkal loxoom si Moustapha Diakhaté concrètement à fond. non non non parce que mag la waaw. non non mag da ngay xam sa place mag man d'accord ma loolu de. ay daan noo diw mag la mag bu xamul place am dañ ko mag bu yare di ko mais dañ la yar ci penc bi. fan lañ si woo procureur sax si loolu. exactement dama ne si interpellé dama ne màgg dama pour àtt ko concrètement. màgg bu yaradiku. Hmm. ay xale yu ndaw ñoo la yar. il faut que moom Moustapha Diakhaté mu xam loolu. bu fekkee moom dafa jël cette posture là di d'insulter les sénégalais di nga gis ay xale yu ndaw ñoo yar moom Moustapha Diakhaté parce que dafa yaradiku on n'insulte pas un peuple on n'insulte pas un peuple mën nga wane fi nga far nga woné sa position politiquement d'accord les gens l'acceptent mais il faut pas insulter le peuple c'est là où je suis pas d'accord mm, mm. aujourd'hui ak no bañ bañ Macky Sall Macky Sall musul taxaw c'est vrai que da doon né sénégalais nañ ko ñaan Amana, c'est vrai ñu menons ni Moustapha Diakhaté ñoo ko xelaloon ba bopp bi dem bopp Macky Sall dem <laughs> Macky Sall ba muy taxaw di naan sénégalais bo leen bok. il faut ngeen voter ñun ñu am majorité Macky Sall dem na fi Bignona taxaw ne askan bi na Casamance boo leen bëggee bokk ci projet bi boo leen bëggee bokk ci laa la wax ci Sénégal il faut voter pour Benno Bokk Yaakaar mu ah gagne une localité du Sénégal qui est au sud Macky Sall ne leen boo leen bëggee bokk alors mi ngi noonu alors c' est clair Moustapha Diakhaté euh, rapport ak li nga xam ne moo di la sortie de Moustapha Diakhaté exactement sur le vote euh, de Pastef moom itam mi ngi euh, persister que nii ki nga xam ne moo di Pastef ak ñu mu daal di àndal képp ku leen voté rek jàpp ni ah da ngaa da danga da ngaa da ngaa da daal ñu bañ a egg si tur bi alors. ñu daal di ñëw itam si leneen euh, du côté de la régie euh, El Hadj ginnaaw li nga xam ne moo di mbiru Moustapha Diakhaté